yéen ñi nga xam ne ni yéen a nekk ci ko gi de <laughs> yaakaar naa ne Ousmane de bi bi biñ ko arrêté woon ci yu mel nii a ah, da ngeen a taxawoon rek di ko xool di ko seetaan voilà kan bu leen dalee nag voilà bàyyi leen ñu seetaan leen rek dégg ngeen waaw Sénégalais yi moom fi mu nii <laughs> léegi kay moom sa waay comme moom léegi bu fi nekk sa waay yaa ma gën a xam euh, boo nekkee maanaam yéen da ngeen a booloowu danga nga nekkul benn loolooy seen problème moo tax ngeen neex a néewal doole loolay problème bi voilà booloo gi euh, da ngeen maanaam kenn ku ci nekk rek day wane ne maanaam bokk na te boo duggee ba ci biir da xam ne kii loolu lu mu wax la nii rek ci kaw parce que tey ji bu ngeen boole woon tey ji jàppale seen waa ji nga xam ne tey ji mi ngi ci kaso bi muy Ousmane Sonko nga xam ne bi muy def karawaanam bi biñ ko arrêté yéen ñëpp kenn waxu ci voilà. ngeen ko bàyyi seetaan ko voilà te daanaka mën naa ne yéen a bokk yeewi askan bi yéen ko bokk voilà kon nag tey Malick Gakou bu la dalee ah voilà da ngay muñ rek nattu la muñal rek voilà adduna moom noonu la waaw kenn ku nekk sa bis rek voilà bu leen fàtte nag réew mi ñoo ko bokk dañoo bokk nday bokk bàyyi di xàccundoo di dóorandoo réew mi loolu moo koy defar wala léegi nag euh, bu waa kër Macky Sall nekkee fee di arrêté gars yi voilà ñeneen ñu jógee fële. ku fi jaar ñu yooxoo la naan la Sonko waaw manifestation yi ak ñi nga xam ne dañuy def ay meeting meeting yi kay laa xamul nu muy demee rek meeting yi 2024 yii man nan la war a nan la war a mel laa xamul man ah bari na ñoo xam ne nee nañ ku fi jaar na la yooxoo ba pare la di la wax Sonko sonkoo loolu kat daa xaw a yéeme voilà beneen bi ci des tamit gis nga kujje gi fu nu tourné ñu daan leen déet fi du fi voilà kon loolu koy bàyyi leen ci xel bu baax. Thank you.